yaa xayr dayf ataa bil birri wal madaadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa hadaadi aawuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi wahdahu wassalaatu wassalaamu alaa man laa nabiyya ba'dahu wa zakkilu bi waftahan rabbi liya fatxan mubinan laa yura li misliya yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen site bii di Waarwi TV noo ngi leen di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu di leen nuyu di leen ziyaara ci weer wu tedd wi nga xam ne moom lañu tàbbi muy chahru ramadan al di weer wu tedd niñ leen digge woon rek jataay yi noonu lay deme incha allahu taala tey ñi ngi am yéenay waxtaane lu jëm ci wàllu weer wi di Ramadan weer wi nag xam ngeen ne dafay weer wu tedd di weer wu màgg fa sunu borom subhanahu wa taala waaye di weer wu tedd wu màgg ci mboolem ñi nga xam ne am nañ ak ragal yàlla dañu daa bàyyi xel weer wi lool ka ca jiitu di muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom subhanahu wa taala li gën ci kaw suuf muy alquranul karim da koo jël wàcce ko ci weer wi guddi gi gën ci guddi yi bal sax guddi gi nga xam ne moo gën junni weer mu jël ko def ko ci weer wu tedd wii sun borom subhanahu wa taala nee na chahru euh, ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaas weer wii di weeru ramadan de mooy weer wi nga xam ne ci la wàcce alquranul karim kon wàcce gi ci suñu borom wàcce alxuraan danañu woon teddaayam waaye danañu woon màggaayam waaye yemul ci loolu mu xool guddi gi gën nga xam ne moo gën junniy weer sax mu jël guddi googu wàcce ci alxuraanul karim inna anzalnaahu fi laylatil xadr laylatul xadar mu def ko ci weeru ramadaan waaye mu wàcce ci alxuraanul karim wax na ci beneen barab inna anzalnaahu fi laylatin mubaraka moom moo wàcce alquranul karim ci guddi gu tedd laylata mubar laylatu mubaraka ngi ci jublu laylatul xadr guddi gu barkeel la di guddi gu tedd weer wi teddaayam doy na ci sëkk li bi sallallahu alayhi wa sallama wax ne man saama ramadaana imaanan wa ixtisaaba gufira lahu ma taqaddama min zambi képp ku woor weeru ramadaan te bim koy woor mu teg ko ci kaw ak ngëm yàlla waaye nag mu jublu ci di sàkku tuyaaba nee na suñ borom dana ko jéggal mbooleem ay bakkaaram yoo xam ne jiitu na kon loolu danañu wan ba tey teddaayu weer wii taxoon yonent bi waxoon ne bu weeru ramadaan tàbbee dañuy ubbi bunti aljanna tëj bunti sawara waaye nag dañuy jéng seytaane yi ba duñu mën a am kàttanu dugg ci jaam ñi ngir di leen yàqal isa jaa ramadan futtixat abwaabul janna wa xullixat abwaabul naar wa sufidat shayatin kon looloot ba tey danañu wan ngëneel li nga xam ne weeru tedd wii di shahru ramadan làmboo na ko muy ngëneel yu baree baree bari yoo xam ne duñu ko mën a lim ci jataay bi waaye sëriñ Tuuba radiyallahu anhu moom it ku fonkoon weer wi la ci daa ko teeru ci daa ko woor ci daa ànd ak mbégte lool ci bu ramadaan di tàbbi ndax am na ay nettali yu ñëw ci ay xadis donte xadis ya moom fal nañ ko isa jaa eh, man fariha bi duxuli ramadan xaramallahu jasadahu ala niiraan mooy ku bég ci tàbbik ramadan sun boroom dana araamal saw yaram ci sawara sëriñ bi buñ xoolee nim daa tatagale weeru ramadaan nim ko daa teertoo daw ko teertoo wenn weer yaa xayra dayfin ataa bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi maanaam tatagal gu amut ab yamukaay ci xeeti baat yi arab di tatagale gan goo fonk yépp moom tatagale na ko weer woowu di ramadaan mooy tertoo na ko weer woowu di weeru ramadaan muy weer woo xam ne du dañ mukk di ñu siyaare si ndax at mu jot ramadaan ñëw nekk gan ci ñun waaye di gan ku tedd waaye kenn ku nekk xam na ne gan dañ koo war a teral boo amoon ganum njengeen wala ganum njaañeen lekk yu baax ak i naan lay gën a bëgg nga terale ko ko ramadaan nag liñ koy terale mooy jaamu yàlla gu bari ak sax ci njub bari lool gannaaw julli farata yi ay nawaafil ci guddi waaye bari lool looy sarxe bu la yàlla mayee wërsëg ngay dimbulee ñi nga xam ne mën nañoo wor ba ngoon ak ni koor mettee te duñu am sax lu ñu doge kon weeru jaamu yàlla la weeru teew ci barabi waxtaani diine yi weeru jàng alxuraan la alxuraan mi nga xam ne weer wii mooy weeram kon weer la woo xam ne buñ koy teral lañ koy terale mooy ak jaamu yàlla la zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi xira taati wa sadadi weeru màgg fa sunu borom la subhaanahu wa taala muazzaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rashadi kon mbooleem ñi baax rek dugg nañ ne dañuy fonk weeru ramadaan wi kon weer la woo xam ne daal tedd nga am du lu ñuy waxtaane ci jataay bu gàtt waaye nag ñu xam ne farata la joo xam ne suñ boroom daf koo gàll gannaaw boo xamee ne nit ki nekk na mu kàllaf xam nga sun boroom subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun dafa farataal ci ñun weeru koor ni ko farataale woon ci ñi ñu jiitu waaye ngir lan ngir ñu man cee fàggoo ak yàlla kon kat daañu ci dégg ne weer wi bu tàbbee ba génn nit ki war naa am ak ragal yàlla raxima an fu rajulin adraka ramadana falam yuxfar laha sallallahu alayhi wa sallam na jaam bi torox mooy ki nga xam ne ramadaan tàbbi na ba jàll te amul njëggalug yàlla te amut njëggalug yàlla <coughs> kon ñu xam ne weeru njëggal la weeru yërmande la weeru gore ci sawara la yooyu nag bu dajee ci aw weer wax dëgg yàlla bu tàbbee ba génn nit ki war naa mën a am njéggalu yàlla googu subhanahu wa kon farata joo xam ne sun boroom moo ko farataal ci ñun te mooy gannaaw bu nit ki nekkee jullit nekk mu kàllaf am am xel lu dul ba dafa am ngàntal mën a woor li lay wan teddaayu weer wi li lay wan rëyaayu weer wi mooy ku ci bàyyi benn fan te tey ko maanaam amoo ngant ndax faman faman shahida minkum shahr falyasum wa man kaana minkum maridan aw ala safar fa iddatum min ayaamin uxar képp koo xam ne nag yàlla dafa dogal mu feebar dafa ame tawat ju ko tee mën a woor bam xamal boppam ne mënu koo boole koor gi wala wàllu médecine ñoo ko ko xamal ne mënoo woor wala sax day tukki bu boobaa am na ngàntal mën a woor ngir coono yi nekk ci tukki ba dellu si waat bu feebareet ba tey mën na bañ a woor ba wér bu wéree mu fa maanaam mu fay koor googee donte nag am na yeneen ñeneen ñoo xam ne may nañ leen ñu bañ a woor donte xaj na dana ñëw ci yeneen jataay ñuy nàmpal ñu nga xam dañoo toll ab digganteeg ya ca aju ki nga xam ne dafa dem ba mage lool ba ëpp ba kàttanam attanut koor gi nga xam ne dafa màggat ñooñ ñëpp loolu ay ngànt la kon kon ci tënk rek buñ ne asaw muy koor dafa bari ay firiwiin bu dee ci luxa jëmmi baat bi boroom xam-xam yi dañ koy firee rek ku jàpp dara tey jii bu jant bi demoon ba taxaw nga xam ne yamoo na doxatut loola dañ koy tudde as sawm tey nit bu jekki-jekki woon rek ngëbu ci dara maanaam waxatul noppi rek bu boobaa dañ koy jàppe ne as sawm la loolu as sawm lañ koy tuddee maanaam jëmmi baat bi daal kon dañuy wax ne rek jëmmi as sawmu mooy alkafu an ayi shay'in mooy nit ki fegu ci mépp mbir nit ki bu toogoon bañ a wax rek noppi dañuy jàpp ne kooku lim def koor la tudd nit ki bu bàyyi woon ay mooy yàlla kooku woor na ci mooy yàlla waaw gis nga inni nazartu lirrahmani sawma lu mi lu mu tekki mooy ñàkk a wax rek al imsaaku anil kalaam bu dee ci sharia nag muy istilaahan dañuy wax ne mooy nit ki bàyyi mboolem lu koy dogloo moo xam lekk la walla naan walla jote ci diggante góor ak jigéen te mooy al alaqatul jinsiya ak mboolem yi nga xam ne moo koy jiitu mu wattandiku yooyee maanaam bañ a jàllale dara ci ak bëliim moo xam lekk la walla naan li tàmbulee ci fenku fajar ba ci sowu jant bu dee ci sariya moom loolu mooy jëmmi koor te mooy jëmmi koor gi nga xam ne nag ñun moo tax ñuy wax kon lu war la ci ab jullit boo xam ne am na xel ba nekk ba noppi nekk mu kàllaf doonte gone manees na koo digal muy woor ci njëlbeenam bu demee ba dëgër nag ci kaw mu man ko bu demee bañ xam ne attan naa woor donte nekkagul mu kàllaf bëgg nañ lool nga di ko diggal muy woor yaakaar naa bu ma jumul boroom risaala ibnu abi zaydin alxayrawaani loolu la waxoon mooy dana yell xale yi ñu tàmbal leen lu baax moo xam ci ay wax la moo xam ci ay jëf njëkk ñuy nekk mu kàllaf yanbaxi an yaalamu ma farada allahu ala al ibaadi min xawlin wa amal lu mu wax xabula buluqihim njëkk ñuy nekk ay mukallaf njëkk ñuy baalix ngir bu mag gi dikkee day fekk waxad tamakkana dalika min xulubihim fekk loola jàppandi na ci seeni xol waaye sax na ba seeni cër miin ko wa sakanat ilayhi anfusuhum wa anisat bi ma yamaluuna bihi min dalika jawaarihum kon dañoo war a digal ndaw ci ak njëlbeenam buñ demee ba xam ne mën naa woor muy woor donte du farata ci moom li fekk nekk gul mu kàllaf ndax mu kàllaf mooy benn mu am fukki at ak juróom-ñett 18 ans wala sax amagu ko waaye ci misaal sax na genn karaw gum judduwaadewut moo xam karaw yi poqtaan wala karaw yu sikkim wala genn karaw rek goo xam ne gis nañ ne gii karaw moom judduwaalewu ko kon bu boobaan moom warugar lay nekk ci moom nga xam ne ni mu waree way juram la koy ware bokkut ak nag waragu ko ñu ne manees na ko koo digal kon weer wi farata la <clears throat> joo xam ne sun boroom subhanahu wa taala moo ñu ko sant moo ñu digal ñu def ko wax ne man ngeen cee amee ak ragal yàlla te kenn ku nekk xam na ne ak ragal yàlla la ñëpp yu wër ndax mooy tax a mucc ëllëg nit ki mënta texe ëllëg te amut ak ragal yàlla te it mooy tax nit ki addunaam yomb mooy tax nit ki addunaam yomb nit ki nag léeg-léeg mën naa tudd def loo xam ne dog lañ koy tudde te du dog léegi bi ñuy wax mooy bàyyi lekk ak naan li tàmbulee ci fenku jant maanaam ba ci maanaam fenkuk fajar ba ci sow jant mu bañ cee naan bañ cee lekk bañ cee jotee waaye bu ci lekkee te tayu ko nga xam ne dafa juubu li ñuy wax juubu bu boobaa boroom xam-xam yi dañ cee wuute ñenn ñi li ëpp ci taabiin yi moom dañoo wax ne dara waru ko ci ndax yàllaa ko nandal ni ko xadis ba indi rek waaye nag bu ñëwee ci ngir mii ñu nekk di ngirum imam malik radiyallahu anhu moom dafa wax ne kooku juubu ki liñ ci jublu ne yàllaa ko nàndal mooy du ca am bakkaar waaye nag faw daf ko war a fay bàkkaar rek la ca am waaye fay gi moom obligatoire da koy def kon looloot ab sew sew boo xam ne léeg-léeg li tax ma tudd ko sax donte àgguñu ca euh, xam nga koor fatwaay day bari te nit ñi dañuy déglu rajo bu ne loolu moo gën a tax ma insisté ci ndax am na benn fatwa bu ma doon déglu ci benn rajo bañ ko laajee ka doon def tontu laaj ya dafa wax ne rek nit ki bu juuboo fay bis waru ko ca te bàyyiwut xel ne li ëpp ci ñi koy déglu ci ngirum imam Malik lañ bokk moom bàyyiwut xel loolu donte moom mën naa bañ a bokk ci ngirum Malik kon yooyu ay sew-sew la yoo xam ne ba tey day mat a bàyyi xel kon daal buñ ñëwee ci ngirum imam Malik mooy ki lekk walla mu naan te teyu ko nga xam ne dafa juubu du ca am bàkkaar waaye nag faawu day fay bis boobe maanaam faawu day fay bis boobe kon lekk googu ak naan gi ñu bari dañoo firee xadis bi rek ne yàllaa ko nàndal yàllaa ko jox mu lekk kon dara waru ko ja abu xanifa ay lenn ci waa këram ahmad bari na ci taabixiin yi ñoo xam ne ca loola lañu ànd li ñu tudde jumhuru taabiin waaye bu ñëwee ci imam malik radiallahu moom lim wax mooy li yonente bi wax na yàllaa ko nàndal moo ko jox mu lekk nee na daalun ala nafiyil ismi faqat la suxutul qada nee tegtal la ci ne rek fay bor waru maanaam tegtal la ci ne waru ko waaye nag fay bor war na ko kon loolu lu mat a bàyyi xel la fi ñuy tënkee rek mooy ñu xam ne weer wi koor du ni ko ñenn ñi jàppe rek mooy bàyyi lekk bàyyi naan rek déedéet gannaaw boo bàyyee lekk bàyyi naan da ngay fegu ci mbooleem wax ju amul njariñ man lam yada qawla yi wal amal bi fa laysa lillahi xaaja fi an yadaa taamu wa sharaab koo xam ne bàyyiwul wax ju ñaaw bàyyiwul jëfe jëf ju ñaaw doonte dafa bàyyi lekk ak naan sax nee na yàlla amul soxla ci bàyyi lekkam googee ak bàyyi naanam googe kon loolu daañ ci dégg ne nit ki moom bariwaana ku woor ba ngoon te kooram nga du ca am lu dul ab xiif yàlla ci yàlla musal fa rubba saimin maa aljamaa laysa lahu fihi siwal majaa sëñ bi dafa wax ne amma siyaamu fantabih lam yanxasir fi adami l akli fa qad la taxtarir nee na xam ne koor ajuwut ci bàyyi lekk bàyyi naan rek déedéet bari waa ku woor ba ngoon te amut ca kooram ga ab xiif is rubba saa'imin mahal jamaa laysa lahu fii siwal majaa mu teg ca ne fa mu an yasuumu kulla uduwin an kulli ma yufdi fatan li koor mooy nga bàyyi lépp lu lay yóbbu ci ak dog gannaaw ni nga bàyyee lekk ak naan mooy wax wala déglu cib gis wala yu demee noonu laal lu araam fa sawmu an yasuumu kulla udwin an kulli maa yufdi fatan li sahwi amsik anil anil basari lil xaraami biir weer wii di ramadaan waaye mu nangul ñu mbooleem suñuy koor wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu